juróom-ñeent yooyu am na ci benn xale bu tuuti benn bébé lii waral accident yooyu yëpp nag comportement humain la maanaam ay conducteurs yoo xam ne du ñu euh, charto ak li code de la route indi dawal ci prudence dawal ci respecter euh, réglementation routière bàyyi ay dépassement fi nga xam dañ ko tere respecter signalisation yi nga xam ñoo nekk ci tali bi respecté doomu adama yi nga xamni ñom lañu la lañu ñom la duggal la dugal ci suñu ay auto di leen yobbu respecté aussi sa sa sa sa bop yow ci sa bop loolu nak ñak conscience ak ñak responsabilité gis nañ ko ci safara bi mom amul juroom ñaar amul juroom ñet benn bi moy formation bu baax ci conducteur yi ak sensibilisation parce que nit mom fu mu nek rek dañ koy fàttali diko fatali diko wax diko tek ci yoon sensibilisation bi mom lu am solo

am solo ci askan bi mooy ñi nga xam dañuy liggéey di xëy di gont di daan seen doole wax dëgg yàlla loolu waruñu ko seetaan kon ñu ngi profiter ci occasion bi di euh, présenter suñuy condoléances euh, aux familles des victimes di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ci gaañu yàlla saafara may leen wér waaye aussi di wax ne nag jot na ñu accentuer contrôle routier bi jot na ñu accentuer sanction yi ba nga xam ne lii nga xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy déplorer te mun na nekk c'est pas impossible ñu mën a xeex ak moom parce que nag accident euh, mun nañ ko wàññi bu baax a baax a baax bu